Brunei, il a Sénégal 800 000 personnes handicapées. L'État du Sénégal a un programme de carte d'égalité des chances. avez fait 56 000 cartes d'égalité des chances. 800 000 personnes handicapées. De Gle, vous avez 56 000 cartes d'égalité des chances. Par amna solo, avez tout le monde. Vous avez 800 000 personnes handicapées. L'an le président Macky Sall,

suñu am-am. bi nga bëggee jàpp Khalifa Sall laajuloo kenn preuve yaa jël sa justice yónni leen ñëw indi jàpp tëj bi nga bëggee jàpp Guy Marius Sagna nga luubal article yi jaxase article yi ay homme de droit yi mënul lire loi sa rakk nag nga ne moom moo baax moo gën ñëpp loolu dafa yomb Aliou Sall sàcc bu pataa bu mag bu duuf la te du yomb. wax ji mooy saa bu ajjuma jotee dinañ ko dàbbali te kenn mënu koo dindi kenn mënu koo dindi ñu ñaari nit mu taw mu neige mu xeer dinañu génn parce que alalu Sénégal la te ñoo ko moom Aliou Sall sa doom gënul sama doom gënul doomu kii a kii ak kële kële alalu réew mi doo ko basar basaree daa ngeen jëf vive le Sénégal